mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan lay fay alhamdulilah cool cool alhamdulilah commanda Thioune ñu gis ñu bari dañ lay gis ñu bari dañ lay gis ci làmb naan commandant Thioune moo lan la gérer ndax gis nga à un moment donné lu commandant Thioune laal rek lan mooy fonction man lan mooy. lan mooy euh, de la sécurité waaw au niveau du CNG de lutte waaw di facilité relation entre les forces de sécurité et les promoteurs ainsi que euh, le CNG waaw. commandant Thioune ñu jëm ci bis yu rëy muy Balla Gaye ak ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang gis nga combat bi dafa am tension te combat bi ñëwul euh, lan nga gisee combat Balla Gaye ak Boy Niang en tant que euh, nan nga gisee combat boobu xam nga c'est que man euh, du ma wax en tant que kuy seetaan làmb wala en tant que ku far ci làmb man lu may wax toujours sécurité la xam nga làmb Balla Gaye Boy il faut ñu def ko sécurisation bu doy bu doy waa te xam nga Gaston du ménager benn effort pour sécurité donc côté boobu man awma lu ma ciy tiit waaw. combat boobu dafa am enjeu mais lan ngeen fas yéene def lan ay yan précaution ngeen fas yéene jël tey lu ci mënti am rek comme. xam nga yéen waa presse bi da ngeen di gaaw a tiit mais xam nga làmb amatul làmb bu pression làmb yu garaaw yëpp. nit ñi dañuy wax noonu rek mais boo ko séentoo bu ñëwee rek weesu na pression yooyu amatul ni ñu war a gérer làmb yu mag dañ koy gérer normal bu ñëwee ngeen ne oh tey gars yi ni ngeen def baax na loolu rek lay doon amul parce que euh, autorités yi duñ négliger làmb parce que xam nañ enjeu bi moo tax waaw xam nga dañuy teg mat teg benn braise yu ndaw il suffit tuuti rek ngelaw mu takk ñun nag loolu la ñuy teel a fay waaw di ngeen jël seen mais yu mat sëkk sëkk semaine prochaine dina am réunion de sécurité dinañ am réunion de sécurité déjà bu ba waxtaan ak ñëpp ba tënk yow boo ñëwee da ngay kontaan parce que lépp ay ñëw. ku lëmbe nag. yow mii sax dama lay lëmbe waxuma la ak ñeneen. mais ku lëmbe nooy def. yow laay jëkk lëmbe. ku lëmbe nooy def ku ma lëmbe avant pendant et après ku lëmbe rek ma lëmbe la. Fallou Ndiaye mii taxaw sax bu lëmbee ma lëmbe parfois dafa am benn altercation bu am ci entre euh, euh, se mooy sécurité yi ak li de la presse parfois da ngay gis ñoom nay xaw a malmené presse bi parfois da ngay dégg sax gars di ko wax mais loolu noonu yéen yéenay joxe ordre bi wala promoteur mooy joxe ordre bi te gis nañ image yi parfois dañuy xaw a sonal loolu commandant Thioune nan ngeen mën a def tamit pour xam ne ñun presse bi suñ ñëwee dañoo invité mais gis nañu gars yi dañuy sonal bu ñu waxantee dégg sécurité du malmené presse au contraire presse mooy jéem a jalgati. non mais parfois ñoom dañuy de benn instant dañuy fekk defal nii def xam nga. waaw buñ non damaa bëgg ñu waxtaan nag buñ nee lii la fi presse bi fii lay yem fii la ñu war a def ñu waxtaanee ko ba tënk ko par exemple pour li ngay wax nii maa ngi fàttaliku benn làmb bu amoon ñu convier benn eh, kii presse taxaw ak moom ci digg wax ak moom ni ko fii ngeen di ne wax nii ba mu ni waaw mu ni bu dee wax ko ay yéen jour ba ngeen bëgg a ñëw dindi ko duñ ko nangu. ñoom war nañoo kii tamit kon di kenn malmené wu leen déedéet yéen kañ yéen a ñuy yéen a ñu sonal. yéen ay malmené waate yéen sonal yéen ay waate yéen ay tooñ. léegi nan la ñu preuve xam nga ñëw nañ ñu ni leen làmb ji nii la ah, boo duggee fii nga war a yem waroo dem fee waroo dem fee. ah kilifa yi ñooy waaw bien sûr que xam làmb bu ci ne. yow yaa xam sa làmb ni nga koy organiser bu la neexee nga nit ñi fii laa bëgg ñu yëpp ku ci ku mu neexul bul ñëw ci làmb ji ah man de loolu laa gis wala gisoo loolu yow. il faut nga wax ak ñoom nag ñu xam nga man du ma jël benn décision te waxu ñu ma ko waaye buñ ma nee lii lañ wax dama koy wax euh, force de défense ni leen lii lañ jël comme décision te dañ koy respecté. yéen kañ yéen a war a jóg seen bopp yéen ah. yéen ku tooñ rek yéen yéen kañ yéen a tooñ xam nga yéen non non yéen da ngeen a doy waar yéen en ligne yi xawma nuñu leen di tuddee ah. mais yen yéen a war a xoolaat seen bopp mais ñoom ñoo mën a ñoom ñooy dañuy tooñ yéen yéen a war ñoom dañuy tooñ yéen yéen yéen ay dañuy tooñ non alkaati du tooñ sànnamu du tooñ ah, déedéet man kañ maa la ca wax lu leer xam nga alkaati tooñ sànnamu du tooñ la preuve ñoom salaan lañ boo leen laalul duñ jooy nga xoolal daal seen façon de. rek ñun ñu la. yow ñoom ngay faral ñoom ngay faral. non du question faral. Ama Baldé ak waaw loo ci wax. Ama Baldé ak Gris Bordeaux sa combat ba tamit noo ñu de non mooy li ma la wax amul benn lamb bu diis ci ñun. dañ koy gérer normal. waaw parce que promoteurs yi organiser combat yooyu dañuy mettre vraiment euh, vraiment ñëw lu leer nañ xam ne lamb ji lañ tëdd dañoo bëgg ñu sécuriser ko nit ñi dañ ko day ko fi. dund ci làmb loo xamante ni def nañ la ko loo xam xamante ni gars yi loo ko def loo te ni def nga ko pare daal gars yi ñëw sonal la làmb. man nag xam nga chance bi am mooy lan man dama di ndaanaan dama di garmi man dara duma ma impressionné léeg-léeg yi kii tël tël lii lii lii mais cinq minutes après dañuy dal. duma am du ma ci am kii yéen léeg-léeg ngeen ñëw histoire ak man gars yi mere ma léeg-léeg mu am ci yéen ñu toog une semaine duñ ma tudd ci léeg-léeg moom ñu toog une semaine duñ ma tudd léeg gars yi di ma di ma nuyoo bakken mais après dañuy ñëwaat parce que xam nañ ni lii la man je suis ni ma man bu ma la nee bu waa ji nii la ñuy def président CNG ak kilifa yi ni ma nañ yem fii foofu la ñuy yem waaw. xam nga dinañu caaxaan dinañu fo mais bu liggéey jotee caaxaan bi day teg nele non non non non man awma sentiment xoola gis nga buñ ma nee nii la ñuy def ñu bind ko kenn du ko jalgati. ku jalgati. ñu jalgati la ku lëmbe ma lëmbe la rek man duma sax kaf ku lëmbe ma lëmbe la euh, ñu ngi fii ah euh, fii ci le virage ah euh, tey nag Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux bi nekk seen deuxième face to face ah Babacar seen deuxième face to face mu nekk combat boo xamante ni mi ngi war a am la 4 février ah incha allah tey nag le 5 février waa tey nag ma jàkkaarloo ki nga xamante ni suma papa suma xarit waaw mu nekk koo xamante ni moom kenn du ko présenté damay ñam rek ndax xam naa ne moom lu mënul ñàkk faaw mu am mais damay ñam rek mbokk internautes yi Père Max maa ngi maa ngi lay fay euh, Fatima di la kontaane yow moom lay léeg dama dul mënal bañ bañal dara ndax da nga ma dul may jàmm <laughs> da nga may sonal lool waaye nag liggéey bi la boo soxlaa da nga war a jàmm sa soxla loolu dafa am solo waaw ñu ngi lay kontaane. Ama Baldé ak Gris Bordeaux bi nekk seen deuxième face to face mais combat bi nan ko ko gisee. waaw muy combat bu am solo lool am solo lool ci ñaari mbari ama ki ko tëgg frère la contrat të tënk na ko lopp ñeenti at règlement may ko mu witi beneen combat deseel promoteur bi combat mais ba léegi amul combat frère am tëgg ko boole ko giri giri jóge ci combat mook Balla Gaye jëlee ci defet ne carrière am mën nga cee génne dix ans yoo xam ne bëriwu ko moom giri te nee na loolu dootu ko dal moo tax mu jóge ci Balla Gaye rek jël Ama moo tax wala combat bu neex lay doon ku ci ne bëgg nga ndam ngir sa bopp combat bu am solo lay doon ci ñoom ñaar ñëpp. Ama toog 4 ans bëreewul mu dal ci Gris Bordeaux loolu du risque. ah non mënul doon risque ah, xale mënul bëree mag ngay xalaat ne risque la ci xale bi déedéet déedéet déedéet du risque mais Gris moom dafa am lu jafe bu bëree daanu sax beneen combat mooy ëpp nit ndax ne amateur yi soxla lay def. day xeex day bëre. Uh-huh. waaw. Euh, li wax ci Gris Bordeaux ñu gis ne Gris Bordeaux euh, nekk na mbër boo xam te ne même amee défaite à chaque fois day amaat chance pour bëre loolu lan moo kam may. waa da ngaa baamtu pour laaj rek ne tënkal naa la ko dama leen dafa jafe ci li muy def li ko waral dara day xeex day bëre tamateur amateurs la soxla bu amee combat supporters yi dañuy ñëw amateurs yi dañuy ñëw ndax lañ bëgg lañ def saf na xorom dégg na waaw buñ demande ni mu sàllar ñu ko da ngay kontaan te day xeex day bëre te amateur loolu la bëgg xanaa xam ne mbër dina daan sax amateur yi mere la. ci façon ba nga bëree mais giri day joxe day joxe day joxe li mu am ama nag moom <laughs> moom beneen affaire la moom yee moom beneen affaire la dalaa lay ngem boo ñu duma ndënd yi mu lànk te daa dégg waaw daa dégg waaw moom daa dégg te fan yële ñëw na ci làmb ci sax xajamal ñu ne lu xew mu ne dam sama yaram a xasan waaw ndax arène nationale bi biñ koy liggéey bokkoon naa ci travaux yi te ba léegi bëreeguma fa waaye fii si yaa ngi may a sonal bàyyi ndax la baal ma écho foofu rek mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su yaay mbërgale yaay fanaan